catastrophe kawteef li <laughs> da scandale dëgg la da ngay seet lii rek étranger yi dañoo napp Sénégal ay njiit yu baax lañ amul woon quatre-vingt-quatorze Walfu euh, Sénégal seen analyse chronique yoo xam ne lañ koy defal saa su nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal di leen siyaar wooye leen di topp fal 94 su Walfu euh, Sénégal 3300 canal nekk ci dëkk bi amul autorisation ah wala maajum a ah, lii de bu fekkee moom lii moo am <laughs> ma xam ne sénégalais yii mosuñoo am ab gouvernement ay naxaatekat ñoom lañ joxoon réew mi <laughs> ñi fi daan jar lii bu fekkee lii moo am mais c'est normal tubaab yi dañoo mosu yeewu seen intérêt rek dëkk buñ dugg ngay layam layam ñu nax la dem seen yoon tubaab yi moom foofu lañ toll te kenn du leen nax dëkk Afrique daal la ñuy topp di leen nax maanaam dafa am société yoo xam ne boo demoon ci réewu Maghreb yi tubaab bi duñ ko fa installé lu ci mel ni canal bii amul ci réewu Maghreb bi amu fa naari seeni biin sport lañ am voilà kenn du fa installé ay canal ngay fay chaque weer amu fa Afrique noire dong la muy ay Sénégal Mali voilà parce que dëkk yooyu moom dañoo neex waaye léegi jeex na de parce que kii li muy leeral nii bu fekkee dégguma wala ma dégg ma xam ne lii moom bu fekkee nii la amee scandale mënu koo weesu ba pare nag ñuy topp ci sunu démb réew yi di noggatu rek nag voilà yow dugg ci dëkk amoo autorisation man mosuma gis nekk fi 3300 amoo autorisation lii moom damaa yaakaar ne damaa nekk ci ay gént laa yaakaar xanaa wala ma déggul voilà xoolal lek sunu xale yi nga xam ne amuñu dara ci luñ jàpp dugg ci dëkk bi kay moo tax xale yi di di di di def réseau voilà boo duggee ci ab dëkk valable ba pare di napp nag sun doomu réew yi maanaam Afrique noire dañoo war a yeewu mais alhamdulilah bi ñu tànnee kon ñun gouvernement yi fi jotoon a jaar yëpp yëpp yëpp yëpp daanaka daal maanaam réew mi itteelu leen woon daal seeni poste daal leen parce que société yu mag yu ràññeeku fees bu ñu mënee dem ba lox mbóot luñ buccut seeni mbir ba ñoom amuñu autorisation mais kon ñun ban gouvernement la yoroon moo tax xam-xam duñu lu ñuy làmbatu dañ ko amul woon seen bopp leen ñoroon ak seeni poos man loolu laa gëm parce que yenn sociétés yi bu ñu mënee wax ni maanaam yenn sociétés yi na nañoo tey ji mun ne sàngamaar am na quarante millions quarante milliards yu war a fay quarante et un milliards ay sociétés yi yoo xam ni sa ci liñ nekkoon dara jubu ci woon li attaqué Sénégal yi duñ bëgg a dee bu ñu añee duñu reer bu ñu reeree duñu ndëkk nekk te société yu mag yaa ngi fi nekk di ramasser xaalis bu dul jeex di ko yóbbu ci seen réew seen réew di soqaliku ñun sunum réew di gën a dellu ginnaaw grace ñan ay nit ñoo xam ne nee nañ am nañ compétent am nañ xam-xam te dara yi xam-xam nekkul ci ñoom réew mi itteelu leen moo tax kay lii tax ñoo yay ñoom kay ñoo yey saa sunu wàccee dem France tëdd ji fa noosi ji seen Sénégal dootu leen itteel non maa bañ ko bañum réew réewam mais képp ku def lii rek ku bañ sam réew nga waaw ndax dañoo am xam-xam xam-xam moom ñi ko am bëgg sa réew nii gaa yi def ngay def di feeñal li nga xam ne moo nëbbu woon dara dootul lëndëm léppay leer suñu ngam daan naa wax sama vidéo de ni lépp la leer ndax ñii fi teg nii jub jubal lañ wax kan kay fi mu toll nii société yi ba ngeen pare ku mënta fay rek gàddul say bagage nga génn xaw ngeen ñoo rey nekk nekk ci am réewum jàmbur du ngeen fay impôt amu leen sax autorisation noonu lii kenn mësu koo gis ba pare nag bu ñëwee di napp suñu doomu réew yi non man dama man lii non Sénégal c'est pas possible quoi Sénégal dëkk la boo xam ne ñi sawaay waay ñi fi joxoon ñi fi jiite woon ñooñu ko yàlla buñ ñu mës a jiiteeti ilaa yawmi diin si fii ni jeex na